Masalikul Jinaan wajalilaayi maskanitu baabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam nag jógati na Sëriñ Touba jëm si Ndakaaru Touba ca kanam ànd ak moom ngir lan yaatal yàkkali yokk sof dekkali liggéeyal sëñ Bamba ku ko bëgg a def àndal ak ca kanam ku bëgg ñëwal tubaa ca kanam moo jëm si place de l'Obélisque foofee nag daañu fa nekk le 23 ba waaye boobu place daañu lañ fa ñëw di coow di xëccoo ña fa dëkk seen fit yi férféri waaye dal leen nag bii yoon Colobane ak la ak place de l'Obélisque Touba ca kanam nag moo fa jëm si ku bëgg yokku mucc jàmm dugg fa te ay dootu fa dugg ñuy soññi bokk yi taalibe yi xarit yi yi dem na ba bitim réew ndakaaru yi rëg-rëgi rek talibe yi di ma soññ di ma laaj Touba ca kanam kañ lay ñëw ñëw na ànd ak Serigne Touba ku bëgg a mucc tey ak ëllëg le 23 ba le 29 demal place Lobis demal jàkkaarloo ak Touba ca kanam liggéeyal sëñ Bamba sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér. Masalikul Jinaan. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat